maire bu ab Abdou Mbàkke Ndaw amal na réception wu ñett téeméeri lamp ak yu tegal tukkee ko ci projet lampadaire bi nga xamante ni nguur gu Sénégal teg ko nag ci loxo agence nationale de l'énergie renouvelable ak Fonroche ñoo ko jagleel gox-goxaan yi Mbàkke nag am ci lu tolloog juróomi téeméer ci gox yi nga xamante ni moom maire bi tànn na ko te sax bi mu ko soppee tudde ko ay nit ñu baax yàggul bokk na ci avenue Cheikh Ahmadou Bamba avenue Serigne Mamor Diarra avenue Mame Cheikh Anta Mbàkke avenue Mame Cheikh Ibrahima Fall ak avenue Serigne Bassirou Mbàkke doon ay xàllu yaatu ñu jàpp ni nag lépp leer na fa loolee mi ngi ko béral ci tournée bi mu doon amal. def réception provisoire ci ñetti téeméeri làmp ak ñett ci par rapport ak 500 yi nga xamante ni war nañ ko am kon lii réception provisoire la liggéey baa ngi continuer pour ñett pour juróomi téeméeri mat ñi ngi ko def nag ci avenue Cheikh Ahmadou Bamba avenue Maam Mor Diarra avenue Maam Chanta Borom Darou Salam avenue Maam Cheikh Ibrahima Fall avenue Sëñ Basirou Mbacké donc yooyu lañ réceptionné guñ kon mu des yeneen yi nga xamante ni ñu ngi koy liggéey donte pare na sax ay yi pareegul yëpp xam naa deuxième réception bi incha allah rabbi dafay nekk une réception définitive donc ñu mën a jëlaale yëpp. maire bi jàpp na ni taxawaayam du lenn lu dul jëli indi teg ngir population bi mën a dund dund gu yemb loolee waral mu jàpp ni projet bi nga xamante ni président Macky Sall jàppale nag commune yi te nag Mbàkke am si deful lu dul di koy rafetlu. kon lii euh, bu fekkente ni jot nañ ko ñun Mbàkke juróomi téeméer lampadaire installé ko ci quartier yi loolu askan wi dëgg yàlla bëgg nañ ci. ginnaaw bi mu jàppee ni Mbàkke sax lu tolloog ñetti junne si waxtu dina ko am si naaj kon nag lampe solaire yi dina gëndil gox yi facture te nag koppar boobu am na feneen fu mën a dugg li muy jur rek mooy loolu dana teggi facture bu cher bi nga xam ne état daana ko fayal commune yi wante it dëkk mel ne Mbàkke nga xam ñetti junniy waxtu lay am ci naaj ci at mi wax dëgg yàlla waruñu utiliser beneen énergie lu dul énergie solaire ndax doy na fi sëkk li ci am solo nag mooy leer na leeraay goo xam ne population yi seen bopp ñoom ñoo apprécier seen bopp ci qualité liggéey bi. foofu it ñu ngi ci sargal président de la république ci gis-gis bu rafet bi am ba teg projet boo xamante ni cinquante mille lampadaires la. coûté cinquante sept milliards de francs CFA. maire bi ndax projet yi nag mu am indil ko dëkkam day firndeel ni am na bilan indi na ci leeral jàpp na ni moom lenn politique itteelu ko li ko itteel mooy liggéeyal goo xam bi mu jàpp ni am na retard bu yaatu ci ginnaaw te politique moo ko teg. Euh, dynamique bi ñu inscrire du dynamique politique mais dynamique wu liggéey la parce que Mbacké dafa am retard yu doy waar yoo xam lépp daanaka politique rek moo ko tardeel te àddina bi dañoo toll foo xamante ni dañoo war a dépasser coow ak wax liggéey def lu concret loolu la Sénégal soxla loolu la commune bi soxla moo tax ñun musuñu ñàkk nekk à l'aise parce que li ñu planifié ñii xar suñu tànk tubéy lii ci état lañ koy jëlee lii ci commune bi moo koy amal boppam lii ci partenaires yi pour que dëkk bi mën a avancer défi nag moo bari mais nañu liggéey rek bu ñu liggéeyee ci kanam tuuti. wax dëgg yàlla dañ gis ne lu bari dana soppeeku. di fàttali ginnaaw lu nu mel projet assainissement o usées Mbàkke joxe na terrain bu yaatu ngir ñu mën fa exploiter lu nu mel yooyu sax dina doon ay jeexintal ngir wàllu mbayim noor bi ne nag sax naal yi moom lépp lu ñuy gën a dem sa kanam muy gën a yokku gis na ni daal jamono ji résultat moom am na ko te da koy gën a dàbbali bu nu sukkandikoo si ay kàddoom.